dafa am lu am Sénégal loo xam ne comme ñu bàyyi ko xel ñu ñëpp war a bàyyi xel mooy gi ne Sénégal ñun suñu bi dëkk franc-maçon la maanaam dañ naan bi réew mi Bamba ko moom réew mi Bamba moomu ko franc-maçon yi ñoo ko moom institution Sénégal yi constitution yi c'est maçonnique maanaam franc-maçon yi ak politique ñoo ko baax ñun suñu dajaloo bii dañ ko war a dajaloo ci lépp bu ñu paree ci góor jigéen bi ñu fexe ba Sénégal jigéen dootul jaayati boppam fexe ba cagatu dootul amati Sénégal dañ ko amati boppam bu fexe ba sàngara Sénégal ñu fexe ba alxuraan bi dugg ci école yi maanaam mbooloo bii fi nekk yëpp ñun li ñu suñu diine dañoo war a fexe ba suñu jiit ñu wàññiwaat seen loxo ñu imposé ko nag il faut ngeen xam maanaam mbooloo bi yëpp il faut ñu xam am na lu am Sénégal école lañ ko fi imam Ndao ma ko doon wax ñu bëree bëri bàyyi wuñ ko woon xaar ba léegi alhamdulilah ñu bëri ñu koy bàyyi xel waaye xam ngeen est ce que xam ngeen kenn lañu toll nii fi mu toll nii damay ni sama kii su ndaw am na ay doomu Sénégal yoo xam ne yiñ ci kaso yi ba tey te defuñ dara ñu dajee ci kaso bi fàtte leen fa te xam na leen tëjee parce que gëmuñu sëkk rek parce que ay baalu ci kaso bi parce que ay jullit lañ ci kaso bi damay lim tuuli nag te xam naa ci kaso bi ma wax leen ñun lu mu waroon bari bari duñ leen fàtte ndax lislaam moo tax ñu tëj leen Macky Sall dafa jot xaalis bu bëree ci subvention mu fekk doomu aadama yi imam ndaw dañoo wax di wax di wax ba turam sib ba turam sib moo tax waaye ñii ñoom siiwuñu moo tax ba léegi ñu ngi yan baal ma ak seen i soxla seen i doom ñu ngi toog sonn lool nekk seen i kër te seen i jëkkër ay nit yu baax rek lañu jàkka ja leen fekk jàppale ñu ci ëpp ñu fekk ñu jàppale ci jàkka ja leen fekk mënatu leen yóbbu leen am na Sénégal xam leen man ni mu tuuti en tout cas ci Omar Yafa ñu ngi may seetaan mi si kaso bi man nekk naa kaso xam naa télé bi su dafay teg dañuy seetaan Omar Yafa Sénégal yëpp ñu lay bàyyi xel bu am gàcce sa boom am gàcce l'islam ñu wax dëgg si kaso dañu tuuti bari bu am gàcce toog rek bu kese fi mu laaxi ay góor ngeen l'islam rek moo tax ñu jàppale jàppale kuy baali jàppale a tudd jàppale Ibrahima man Abdou Karim maa lay wax te ne ñu lay wax la mu ngi ak yéen ci allah Sénégal l'islam moo fi am ndam Sénégal kàddu moo fi ëpp doole pour a doon incha allah. ñoom rek ma yeggali Mouhamed Mbaró Ibrahima Mbaró ak. Makhtar Diokhané mi nga xamante ne nii tëj nañ ko 20 ans te ba léegi mënul wax lii lañ ko tëj ñun ñëpp dañ leen tëj ci kaso bi. maa ngi jaar leen bëgg di wax ni li am solo mooy moom laay tëj rek kàddu yi ñun dañuy wax rek te wax ci tubaab yi dañuy wax opinion internationale Makhtar fu mu toll dañu nekk di ko libéré li ñu koy libéré mooy def ak wax dafa image boobu mbir moom image bi mooy li mooy drapeau boobu ci li am lu jëm Jacob. Jacob.